sénégalais yi doon xaar tey juge bi daal na àtte ndogal li mooy ñu delloo waat kii di Ousmane Sonko ci liste électorale yi bile décision nag avocat yi xamle ni nekkul lu dul ndamu justice bi. ndamu yoon la ndamu droit la ndax euh, lii juge bi wax tey mooy le juge wu Ziguinchor bi waxoon maanaam annuler euh, radiation bi ordonné ñu réinscrire ko loolu la juge bi wax tey. motivation yi rek moo wute maanaam cour suprême ba muy cassé euh, ci motivation yi moo tax mu cassé mais décision ba nga xam ni moom la juge Ziguinchor jëloon moom la juge Dakar jël. radiation leaderu Pastef yi ñoom ñi la jàpp nañ ne nekkul lu dul jaay doole moo tax xam ne nañ ni su dee recours am na it dëgg rek mooy liy mujj. ma yaakaar ni état pour enfin dana raisonnable euh, parce que même pour sauver la fas waruñu def pourvoi bu bees. parce que bi yoon chambre réunie lay doon mais li wóor mooy décision bi ñu jël tey dañ ko war a exécuter tey bu fekkee état dafay respecter droit respecter justice décision bi nga xam ne jël nañ ko tey dañ ko war a exécuter immédiatement même bu ñuy def pourvoi en cassation parce que décision wu tey bi c'est pas euh, pourvoi bi c'est pas suspensif. jamono ji nag xam leen nañ ni kii di mandataire bi mën na dem jëli ji fiche de parrainage bi gannaaw. bu juge bi génnewee notification bi. parce que décision amuloon acte de radiation amuloon notification amuloon donc affaire dafa leer que jaay doole la woon euh, abus de droit la woon donc juge bi daf ko corriger tey dafa ordonné li nga xam ne mooy yoon. supporter Ousmane Sonko yi bëri woon loolu ca tribunal bi gannaaw bu décision bi génnee ay woy lañ doon def jagleel ko leaderu Pastef bi.